moo la euh, njëkk a marqué ci bi nga tàmbalee foofu noonu. bi ma tàmbalee li ma fa njëkk a mooy télé boo xam ne familanu mais ñu fekk fa yaay ju mat yaay yaay ju tax Sénégal gëm ñu man ak Ndoye Bane tey lu ñu am dañ naan ginnaaw yàlla Déguène Chimère parce que daf ñu gëmoon daf ñu joxoon suñu suñu wàccuwaay. daf ñu joxoon cër boo xamante ne dañu daan wax lu ñu gën a xam fopp mu ne ah Sénégal déglu leen sama doom yi ñii dañoo xam lépp te fekk li ñuy wax moo ñu ko gën a xam ndax ku la njëkk a taal may la doom lam ca xam xamuñu ko ca mais mu ñuy gëmloo sénégalais yi di jox importance li ñuy wax tellement que nit yi dañ doon bàyyi xel ci ñun ak di ñu di ñu di ñu yëkkati ku mu xam wan ñu ko tout le temps sama doom yi lii sama doom yi laa moo waral bi ñu fa defee un an def fa bi nga xamante ne mën naa ne moo. yëkkatiwaat wareef ba mu tolluwaat fi mu toll nga xam ne booba nag damaa yaakaar dañ doon xaru dañ doon jaay suñuy bakkan muy maraboutage coow li ku ne dégg na ko <laughs> ci la ñu ci la ñu amee woon coow yu rëy rëyee rëy ci Sénégal sax yaakaar naa ne ndax booba li ñu toj ci doomu dil moom mënatut a am ngi tombeek yu su dem Australie donc euh, ci la taa de ne ko sama doom yi danoo mérité anniversaire ñun ci la nu amee un an TFM yaakaar naa anniversaire bu rëy booba itam ku nekk gisoon na ko loolu ku la fonkul du la ko defar à travers ce thème yooyu noonu mosoo si subir benn menace wala dara parce que des fois da ngeen di développer loo xam ne dafa xaw a sensible. ah waaye xam nga nag liw bi liw bi ngelaw li la xam nga man ëkku kel laa tiituma ngelaw man menace yëngalu ma taalibi Cheikhul Xaddim laa sëriñ Abdou Lahat laa gëm moo ne bu ma naan patt ñu ne damaa mer bu ma waxee ñu ne damay xuloo man fekk sama conscience a ngi tranquille mën na maa dem. ragaluma mais mosoo ci subir. waaw mus naa ko ba pare am ko ma woone ma sama sëriñ ngay waxal ma ne ko yàgg sa sëriñ bu ngeen ci gisee seen bopp ngeen jël pour yéen la. Euh, ci itam yaakaar naa ne jot nañ ci ay menaces yu bari ba ki ñuy wax xaw ma borom paaka bi xaw ma man après sax lañ dem mooy borom paaka bi xaw ma nu mu paakawee mos na ma fi topp mais xam nga yooyu yëpp yëngalu ma. amul benn moment boo xam ni nga xaw a tiit bëgg bàyyi li ngay def. wala sa famille bëgg def pression pour nga bàyyi. waaw pas man mais sama famille am na benn moment ñuy def pression parce que xam nga rek Touba ak yooyu peut-être duñuy duñuy comprendre yenn yi biir famille itam ndugum marché la day am xeetu légume bu ne donc li ngay tem ba ci sa biir famille sax peut-être da ciy am. amon nañu ko ci daan ñew di wax sa dom ji limi wax waru ko wax limi wax a ko mag li wax a ko kii buñ ko ci yaqé buñ ko ci liwé tellement que munima da ngay arrêté tém bi wala nga bayyi télé bi ci bopam parce que li gisuma lu ko fi jar sank sa bakkan la mané ko yaay man yaama jur man xawma soob di depp gor la dama sumbandok samay morom damay fey traverser rek mbaa ma ci bir dex ñom mais gennu ñu duma genn ban aussi nga xamni mom mo la gëna marqué peut-être li ngeen ci defar la wala wala benn euh, boo xam ne situation boo xam ne nit ñëw na la ko nettali affaire bi marqué la boo xam ne yéen après jot ngeen ko résoudre. waaw ban thème moo gën a marqué waaye. cas wala kaaboo xam ne ñëw nañ soumettre leen ko cas bu la marqué. Hmm, xam nga nag tellement que doo ko bàkkoo ndax da ngay xam ne ku mën nekk fi ku yàlla dimbalee fi nekk. waaye wax dëgg yàlla am dañoo lijjanti yu baree baree bari yoo xamante ni yii guddi lay doon yii bëccëg lay doon amoon nay temps doo tëdd parce que da ngay génn sax ànd ak nit ñi di dem di ko lijjanti ji waaye jàpp naa ne di waaw jàpp naa ne li ma lijjanti ci ay kaa daal li ma ci gën a marqué su ma juumulee euh, côté camp pénal lay doon waaw jigéen joo xamante ne daal jëkkëram tasaare na cinq doomam tëdd penam ba génn ñu abandonné ko yooyu yaakaar naa yooyu daal dina am nag yeneen yu la marqué mais xam nga nii nii nii day bari ci sa bopp tellement que doo mën a delloo seendoo yëpp. tout le temps aussi xam nañ la da ngay dem euh, camp pénal di yóbbu ay don wax nga ni que ba loolu bi nga ko tàmbalee yàgg na léegi fan la affaire bi toll parce que mami boobu euh, nit ñi xamuñu ko woon mami bii nit ñi xam nañ ko léegi don yooyu noonu loolu boobu ba tey bàyyiwoo ko. déedéet loolu moom yaakaar naa ne yàlla na yàgg yàlla na yéex. mais ba ba may dese benn nooy yi duma ko bàyyi soo gisee ñun weeru koor rek la ñuy am congé mais mosuma génn Sénégal ci sama congé yàlla xam na ne campé naa la tax euh, ndax jombati naa sax génn dem bés ba jot duñ ma gis loolu dama ko jomb ndax dañ koy xaar dafa am benn directrice bu fa mus a jaar ne ma mi soo xamoon sa journée bi li muy réglé ma ne ko ah, mu ne ma bi ngay commencé di leen laaj ban couleur yére lañ bëgg parce que mën na détenu yi nekk 500 bis buñ ko doonoon ñaanuma ko yàlla mais du tee ñoom ñëpp laay xottil yére te dama leen di laaj itam ndax am ngeen choix ban couleur ngeen bëgg wala ban lii donc ci moment boobu bu koy waajal ñoom ba bañuy xotti ba bañ yeneen détenu góor yi di ñëw di leen jëlal mesure ba bañ leen di ñawal ba bañuy pare ba bañuy gis ñu indi bâche bi di monter loolu yëpp ñoom événement lañ koy def dañ koy waxtaanee ci biir cellule yi dañ koy waxtaanee suñu génnee ci cour yi dañ koy waxtaanee fa ñuy cuubee fa ñuy arawee tellement bagu bi waaw tellement moom nee na ñoom dañuy nekk weer bi yëpp parce que dañuy nekk ci mouvance boobu du ñu tal sax yenn déco événement ci ndo ci weer waaw donte nag maa ngi ciy sant yàlla ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen a ngay ñëw di ko fa def ba léegi mi ngi gën di bari